nañ ne du yéen mooy décider c'est tellement vrai que même F24 ñoom ñoom yoon nekku ci du décider parti ñoo décider ñoo ñoo mais lan moo tax yow nga ne man dew ma dialogue nga ne kii warul dem dialogue te man ma am intérêt dem dialogue ci intérêt parce que xëy na amoo problème ma am naa problème dama koy damay dem discuter ko parce su may droit dañ ma ko xañoon dañ ma ko xañoon damay dem xeex xeex bu jëlaat ko. xam nga léegi nag ma ñëw foofu. léegi ñii bëgg a dem et eh, Bamba Dièye dama dama dem na Bamba Dièye a fait le meilleur mu bokk. oui mais mu ñëw déglu rek ma ma ñëw ma ñëw. Bamba Dièye dafa gelé ses actes. daf Bamba Dièye ba ngeen ko ba ngeen ko tegee à la vingt troisième xaw ma moom ak euh, Mansour Sy. Bamba euh, Dièye ci lañ leen ci ci la ñu mettre en berne leurs activités. Bamba Dièye était membre de Yewwi Askan Wi. Ah, waaw était dem na dialogue. waaw dama dialogue. dem na. waaw ma ne mais mais mais dafa même Guirassy dafa gelé woon activités. bi mu dellu si waat tey yàggul. ñëwaat na ñëwaat na ñëwaat na depuis juillet waaw na dal jàmm. ah amul problème xam nga man li ma bëgg a wax. Euh, Maimouna Khalifa Sall ba toog këram ay leader de parti dem seeti ko individuellement laax de grand damaa bëgg nga jàppale ma ci élection bi ñu jëm. ñan ñoo ko seeti. dama la wax ko dama la wax ko ma ñëw kër mu ne ma diw ak diw ñëw na fi am ñëw nañ fi nee nañ dañ bëgg ma jàppale leen. parce que ñoom acté woon nañu la non participation. de Khalifa Sall pour ñoom mu doon arrangé. ku ne yow koo xamante ne kay dafa nar bokk wala bëgg na bokk parce que même pas décembre la ko jàppale ma. beneen bi mooy 2019 ba xam ne nekkee prison tous les leaders étaient partis leaders demander leur soutien kenn laa dégg man yàlla moo tax may wax parce que mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci mu ngi mu ngi ci vidéo yi. Ousmane sonk te laa dégg mu ne dem naa seeti Khalifa Sall nee naa ko xam naa ne am nga candidat booy jàppale mais mu yëgal la man candidat la pour nga ñaanal ma mu ci mu ngi vidéo yi mais tout le reste dañ demoon ne ko jàppale ma man mi wax ak yow des leaders venaient chez moi pour ma jàpp ci Khalifa pour pour mu jàppale la en 2019 à l'époque personne d'entre eux n'avait dit que Khalifa Sall su bokkul duñ bokk tey jii may wax ak yow ñoom tey fi ci luñ nekk ñu ngi ut parrainage maa ngi gis ñenn ñi Kaolack ñenn ñi Louga ñu ngi ut parrainage ñuy def ay programme ana Ousmane Sonko il est dans des conditions très difficiles yaa wax sànq. ah mais ma ñëw rek ma ñëw rek euh, ma ñëw wax lii wax la ci ma ñëw ma ñëw Habib Sy Maïmouna Bousso Aïda Mbodj et à Touba pour plaider la cause de Ousmane Sonko aussi naa si ñëw naa si ñëw ah. xam Ousmane fu mu toll day li ñu jox la mooy ñaanal ko jàppale ko mu génn ci li mu nekk taxawu Sénégal ñun changé wuñ position euh, Maïmouna fi ñu nekkoon démb lañ nekk tey gis nga li ñu waxoon démb lañ wax tey li ñu waxoon démb mooy Ousmane Sonko est victime d'un complot dans l' affaire Sweet Beauté dans l' affaire Prodac. sauf que non ma ñëw porteetu leen combat. ana kan ana Yewwi ana waa Yewwi fa ma maa ngi ñëw déglu ma communiqué une était à Touba hier waaw yow loolu a yomb. Ah. ma ñëw ma ma expliqué dama ne Ousmane Sonko ñi koy jàppale yëpp tey di bind di xataraayu di nangam nangam amul kenn ci ñoom ci ces leaders là ku mun taxaw ni ne sans Sonko duñ dem élection doo dégg ñoom leaders yooyu ñu ne bu son ko demul du ma dem mais nañ ko wax logique pour logique dafa war a bokk dañ gëm a dafa war a bokk ñoom dañ war a bokk ñëpp war a bokk nañ ne bokk luñ bokk duñ ko def. mais mais ma ñëw rek maa ñëw maa eggali xam lu ñuy def ñu ngi wut parrainage pour ëllëg nag. bu bokkulee ñu ne ko jàppale.